laylatu mawlidi nabi laylatu maawi ruyabi laylatu maawi taabi wa tuuri si taazumi alhamdulilah almubin man kawnuhu liya yabin ala alkitaabi muhtabin maa jamiin amin ahmadu rabbi alazim amdan kasiran la yarim musalliyan ala alkarim alwara limunimi askuru salati almajid shukran yulaqi almazid musalliman ala alwahid bi kalkali wa kallimi mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñuy taasoo si bayit yooyu nga xam ne ak tam la ak julli seen Nabi alayhi salaatu wa salaam te soxna sëñ bu leeral ko sànq muy xasida boo xam ne ci guddi gàmmu la ko sëriñ tali ñu ngi jël ab nuyoo di ko teg ci bi muy sëriñ Amar di ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal njéenee liggéeyal bàyyam ju tedd ja suñ borom mottali ko àttali lépp te ak taalibe yépp ci barkeb Sëriñ Tuubaa xëy na sax waxtaan moom dam ta rek ndax ku ne guddi gàmmu ñu war a fàttaliku lenn ci sangu sang yi muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ñuy yëkkati ay kàddu waaye ñu ngi tuub baax di jéggalu ci kanamu sëñ bi nga xam ne ñu ngi fi yëkkati ay kàddu waaye lépp rek si ndigalam la ndax moom dañoo doyloo ci lépp lépp loo xam ne lu mu war a def la buñ ko defee bu ñëwee xol bu sedd rek la ci am ak yokkuñu ay ñaan fépp foo xam ne fu mu war a dem la tamit bu ñu fa demee bu ñëwee wala mu ko ci keneen tamit xol bu sedd la ci am ak yokku ci ak ñaan kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko am ko ci mbooleem pakk pakk yi ak mbooleem taaliba yëpp di ziyaara mbokk jullit yi yëpp xëy na waxtu wi dañoo xaw a xoj tuuti waaye guddi gàmm moom lu mu gàtt gàtt rek donte as benn mbind la bu ndaw def naka ci fàttali ci leen li nga xam ne moom mooy xayaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam guddi yonenti yàlla bu tedd boobu muy koo xam ne léppam mun nañ kaa tënk ci lii mooy li ñaari xale yi doon yu sànq yàlla xam na ne bi may tànn tem bii sax yëgowuma nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu soqaafa ci daara ji waaye xëy na liñ naan jamono daa dem ba toll xëy na jamono bu demee ba toll ci moom mooy indiwaat boppam moo tax ci la ñuy tànn tuuti rek ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak teggin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yaram hmm. képp kuy am dignité wala képp kuy am personnalité wala képp koo xam ne dafay takk ay garaat yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi garaat ndax moom ba mu ràññaanee mbooleem yonent yam ba fekk yépp dañ kaa jiital daat koy teral daat koy màggal ngir garaat yi suñ borom jox nga xam ne dem na ba egg suñ borom foo xam ne mboolem yonent amut kenn ku ko mos a am ba ci malaayikatul muqarrabin yi sax egguñ foofu ñu egg suñ borom suñ boroom dem na ba jege yonent bi alayhi salaatu lu toll ni diggante xala maanaam diggante xale mooy fett bant ba fa ñuy takk buum ga diggante bant bi ak moroomam jege na lu toll noonu suñ borom suñ borom nee na fa kaana qaaba qawsayni aw àdduna dem na ba toll noonu wala sax lu ko gën a jege borom bi wax tamit lépp loo xam ne suñ borom sala suñ borom subhanahu wa taala bind na ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moo ko ci gënal wax ne lépp loo xam ne sama ngërëm la man ngeen di ko sàkk na ngeen ko jaaree ci ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne boo leen ma bëggee man yàlla te bëgg di wér na ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wa wax ne lu waay di sakku ak lu mu rëy rëy rëy ak loo ma jege jege boo ko jaaree ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci nga koy amee waaye boo ko jaareewu si moom doo ko am kon mboolem garaatu góor yàlla yi ngay dégg yépp ci mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko jëlee moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne rafaqtu xidmati ilal wasila sama liggéey bii ak li muy rëy rëy rëy rëy lépp jël naa ko jaaree ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te baatu xidma bu buñ ko waxee mooy jëpp jëf joo xam ne nit ki mi ngi koy jëf te wuti si lu dul fayug yàlla wuti si lu dul yàlla amut mu xaabal nga xam ne amut def lii ñu jox la lii Sëñ Tuubaa nee sama liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def liggéey bi mu dox ma diggante sama borom lépp maa ngi koy jël jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon kooku moo taxoon saxaaba ya joxe woon seen bakkan moo taxoon saxaaba ya génn seeni kër bàyyi seeni waajur ak seeni doom ñenn ñu bàyyi seeni soxna moo taxoon saxaaba ya daan woor ba ngoon jot yonent bi sallallahu alayhi wa woote xare ñu bàyyi lépp am na ci koo xam ne wallaahi alazim guddi gi ñu ko joxee soxnaam mu waaj bay war ànd ak soxnaam ci la digg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wooteb xare mu bàyyi soxna sa génn dem teewi xare ba ba demee sa xare ba del ci waatul kon ñooña dañoo joxe woon seen alal joxe seen bakkan joxe seen lépp ngir yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon kooku moom lañuy màggal tey ci guddi gi yonent bi alayhi salaatu wa nag message bi li muy yàgg yàgg yàgg lépp dafa am ci lu ko tënk ne moom la doon moom moo ko tax a ñëw message bi li muy gudd yépp fukki at ak benn yam def makaat fukki at ak ñaar ñii na fukki at ak ñett yam def madinatul yooyu yëpp boo ko boolee dafa wax ne benn mbir rek moom moo ma tax a jóg ñu ne ko yow yonentub yàlla bi mbir moom la na mu ne innama bu'ithtu lu utammima maqaarima al axlaaq man yàlla dama yónni ngir ma matal ay jukko yu rafet ngir ma indi ngir jàngale ay teggin ay teggin nag mbokk yi buñ demee ba mu tàmbalee raaf ak li ñuy jàng alxuraan ji li mu bari bari li ñuy julli li bari bari bari bari bari ak li ñuy woor li mu bari bari bari bari bu àndut ak ay teggin suñ borom bëggu ci dara kon mbokk yi yonent bi alayhi salaatu ak li mu fi nekk yëpp ay teggin rek la doon jàngale moo tax ci wane is kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuramu fawzan wa intifaa wa huwa fi daarayni gayru kanzi wa gayru mactazza bihi tuizzi li annahu munawiru ljanaani kama yuqarribu ila aljinaani wa yujabu almad'a lada jiraani kama yubacidu an alniiraani wa huwa alladi jacala husna aladabi yufi jahalatan wa qub'a annasabi mu ne képp koo xam ne mi ngi jéem a topp yàlla te topp yàlla nag bu ñu waxee dafa yàlla te jaarewu ko ci ay teggin Sëriñ Tuubaa nee na kooku du am la muy sàkku ko nee na teggin mooy ngën gi koom gi nga xam ne nit ki dina ko denc ci jëmmam waaye mooy ngën gi koom gi nga xam ne nit dina ko bàyyee ay njabootam ndax lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy denc mu war kaa jariñ nee na ay teggin moom moo ci jiitu lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy bàyyi ginnaawam mu war a jariñ ak njabootam nee na nga fexe ba def ci ñoom ay teggin moom moo ci jiitu nee na képp ku tedd wala képp ku yëkkatiku nga yëkkatikoo ci ay teggin moo gën a foor moo gën a riche moo gën a am valeur waaye lu waay yëkkatu bu yëkkatikuwut ci ay teggin nee na lam yëkkatu du dara nit bu yëkkatikoo ci alal ju bari lam yëkkatiku du dara nit ki bu yëkkatikoo ci askan wu juddu la mu yëkkatiwu du dara nit ki bu yëkkatikoo ci xam-xam bu bari lam yëkkatiku te àndut ak ay teggin lam yëkkatiku di dara ndax lii yépp yonent bi alayhi ñu ko ëppale foofu te suñ borom ba koy tagg dana ko wa innaka la yow de xool naa ba xool de waaye daal ku tedd yi jukku nga monti mënoon naga kaa taggee ci leneen de ci ak juddu rafet mbaa mu taggee ko ci naafila yu bari mbaa mu taggee ko ci woor yu bari mun munoon naa naka wax ne yow kat ko yaa daq naafila ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da daan naafila ay tànkam di metti di neew yi bu sëy naa ay salaat na ko lu tax ngay naafile ba say tànk di metti te yàlla jéggal la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne leen ndax du mu wax si saydatuna Aysa daan ne ko ndax du ma nekk jàmm boo xam ne damay sant boromam kon mënoon na kaa taggee ci jëf ju rafet yooyu wala mbaax yooyu mu daan def ci xeetu jaamu waaye yooyu yëpp taggeewu ko ci dara dakaa taggee ci ak jukko yu rafet kon yu rafet li yónni bi alayhi salaatu wasalaam wax ne moom moo tax ñu yónni ma loolu boo delloo si alquran na nga koy fekk yàlla saay bu wooyee yéen ñi gëm rek daf leen di dénk benn jukko ju rafet saay wooyee ñi gëm rek daf leen di dénk benn jukko bu rafet mu ne yaa ayuha amanu taqullaha wa quulu qawlan sadida yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min azzanni yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla na ngeen di wax dëgg te wax dëgg ci jikko ju rafet la bokk yéen ñi gëm yàlla na ngeen wattandiku ñaaw njort ci sa mbokkum jullit te rafet njort ci jikko ju rafet la bokk dellu waxam ni sax jikko ju rafet moom mooy tax ab jullit mun a doon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jullit yonent bi alayhi salaatu wa wax na ne akmalul muminina imaana benn riwaaya nee na akmalu muminina ixsana ahsanuhum axlaaqa ki gën a matale ci yéen ay jikkoo ki gën a matale ci yéen ak ngëm ki gën a matale ci yéen ak ngëm mooy ki nga xam ne moom moo gën a rafet ci yéen ay jikko kon ak ngëm balaa mat dëgg faw jikko rafet suñ boroom moom ay jikko yu rafet lay xool ci doomu aadama moo tax yommal xiyaam kenn du fa yóbbaale ak reyaande suñ tubaa wax ne doomu aadama bu ko ay waajuram yarut mbedd mi dinañ ko yar nee bu ko mbedd mi yarut bàmmeel dinañ ko yar ndax suñ borom kenn du ko yóbbaaleel ak reyaande kon mbokk yi li ëpp nit walla li ëpp solo ci doomu aadama mooy ay teggin mooy ngën gi koom ñi nga xam ne nii nit ki war na ka puukare sëñ bi nag daan na faral di wax ne teggin nag danga tax ñaar nee na teggin yi war diggante nit ki ak boroomam ak teggin yi war diggante nit ki ak moroomam li ma tax a jóg nag nekkut teggin yi war diggante nit ki ak boroomam li ma tax a jóg fii mooy mbokk yi mooy teggin yi war suñu diggante suñu biir ñun ay julliti neen yàlla dafa indi na ne innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna aqwaykum yàlla nee na jullit ñépp ay mbokk lañ waaye nag nañuy rafetal ci diggante mbokk ji rafetal diggante mbokk gi mooy lan mooy nañuy am teggin seen biir nañuy am teggin seen biir xale bi wax na ko sànq waj'al mislak ka ci sawa li wajhi xaaliqin ala xati stawa nee na ku la mag na ko def ni sa waaju koo mag na nga ko jàppee sa doom sa moroom na nga ko def ni sa bopp ndax ñu ñépp ay alalu yàlla lañ te borom bi subhanahu wa moom moo gën a yey ñépp ci ñoom mu ne sëñ Tuubaa nee na nit ku nekk na nga xool ci moom àq yàlla ji te bañ a xool ci moom àq mbindeef yi masalan tey bu ma yoroon sama bool boo xam ne dama ci def ñam dugg ci biir génn fekk am xar lekk ko ma dàq xar ma ba jot ko dem bay dóor ñu ne ma xar mi nga nar a dóor kat xarum xalifa mayga la wala xarum soñ bu laam la ma daal di koy bàyyi lu tax dóoruma ko ngir xam gaa xam xalifa wala ngir xam nga ma xam soy bu moom moo tax dóoru ma xar ma wala gaañu ma ko def ma ko neneen suñ tubaa nag nee na nit ñi na nga xool si ñoom sa borom mi nga xam ne ni moo leen bind ndax boo demee bay def dara rek na xam ne sa moom moo bind bind la nee na na ngay teral doomu aadama ngir sa borom mi nga xam ne ni moom moo ko teral teggin nag bokk na ci mooy di yëkkati ku yàlla yëkkati di yëkkati ku yàlla yëkkati ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne maanaam dugal ku ci bokkul sax moo gën génn ko ci bokk maanaam gaay yàlla yi nga dugal ku ci bokkul moo gën génn ko ci bokk maanaam ku yàlla teral rek na teral bul ne mukk ak ay pexe wala leneen la ku yàlla teral rek nanga ko teral moo xam teralug àdduna la moo xam teralug saaxir la wala teralug baatin waaye bokk na ci ay teggin mooy ku sa borom teral rek nanga ko teral suñ Tuubaa nee na bokk na ci ay teggin ku nanga ko jaay ku jayu nanga ko jaay nee na bokk na ci ay teggin nga bàyyi ñoom ñaar ñëpp seen melokaan ba ñu ñoom ñaar ñëpp nga bàyyi leen ci nga melokaan ba nga xam ne noonu lañ mel xale bi wax na ko sànq teggin mooy bul xool kenn ne kii moom moo ma war a jox ay ay ay ay daraja moom moo ma moom moom moo ma war moom ameel àq déedéet nee na na nga xool ne yow yow yaa amee nit ñi ay àq waaye bul jàpp ne ñoom ñoo la ñoo la war a jox ay teggin déedéet na nga jàpp ne yow yow yaa leen war a jox ay teggin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci njàngaleem mu mat ma ci li mu wax ne dañ maa indi ngir ma matale ay jikko yu rafet dafa am ku ñëw fekk ko ma saxaaba yi yépp mu nekk ci digg saxaaba yi di jàngale am benn arab yi bu ñëw bi ñëwee fekk ko ci digg saxaaba yi muy jàngale ci jàkka ji jàkka ji alayhi salaatu wasalaam ba nekk madinatul munawwara mi nga fekkee muy jàngale waj daa di saw ci seen wet di saw rek saxaaba yi jug narkaa nara narkaa fitnaal mun leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu saw ba àggal waj bàyyi ko mu cororore rek saw foofu yépp ba tooy xat wogganti wat wane ginnaaw yonent bi woowu ko de dafa dab ko xam nga noonu na waaye dafa jug daw dab ko ba mu àgg sa moom mu ne ko mbokk mi yow yaay kan mu xamal na ko ni mu tudd xamal ko fa mu mu ne ko waa xanaa xamoo woon ne fii néegub yàlla la waa xanaa xamoo woon ne fii néegub yàlla la bu ëllëgee boo bëggee tuur ndox da dem sa barab bee foofee la ñuy tuuree ndox waaye fii néegub yàlla la kenn dafa tuur ndox dégg nga daal di wax ashhadu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa xam ne ci ay jikko yu rafet xam nga mënoon naa wax ne kii damaa yàpp tey jàpp naa ne ku demoon ba jub pale bee wala nga xaw kaa jege tuuti rek nar faa def loolu bu bu soobee yàlla danga ko rëccu moo gën a kawe ñëpp mooy rëx surru aussi mbooleem président yëpp moom mooy seen président xayrul anisi lil anbiyaa yi mboolem yonent yëpp mooy seen mais xoolal xeetu jëflante ju nooy jooju noonu nga xam ne jëflante na ko waa ji jëlee leen benn misaal ku ñuy wax Sayd ibn Arif Sayd ibn Arif ab jaam la woon boo xam ne jaamu saydatuna Xadija la woon saydatuna Xadija daat koy rafaatale yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam Sayd ibn Arif nettali na ne nekk naa ci biir kër sangub sang yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk ab jaamam nekk ci ron keppaaram di ko liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam musuma wax ne jox ma lii wala jottali ma lii wala li nga def catut wala li nga def baaxul fukki at ñaar man maay dem na ba xam ne lii war naa ko def ma jug def ko rek wala maay dem ba xam ne lii nii la gën a rafetee ma defee ko noona waaye am benn personnalité bi mu koy won ci kanamam sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dem na ba yëkkati dareetam lu bokk ci moom may ko kon mbokk yi nañuy rafetal teg teggin yi ci suñ diggante suñu biir suñ bay jaxate nag daan na wax ne am yaray tax ñu jël nit teg ko sa kaw waaye ñàkkub yaray tax ñu jëli yar di ka caw kon kenn ku nekk na jànge ci guddi gi ne war naa seeta boppam ci ay yar ci ay jikko yu rafet jikko nag olof nee na tuddul jikko jikko la tudd jikko mbir mi yàgg ji ci sa bopp di ci dox di ci nàmpatal ba keroog muy nekk ci yow moo tax wa huwa akmalul wara xalqan wa hulhan sahara wa mislu xattu lam yuraa wa lan yuraa fi siyam suñ tubaa nee na yonent salaatu wasalaam mooy ki gën a mat ci bind ak ci jikko nee ku mel ni moom deetuñ ko gis ba mukk waaye nag bàyyi na fi jaxantal kon te yàlla waxoon nañu ne uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma bàyyee naa leen ab royukaay bu rafet képp koo xam ne bëgg naa jariñu ci àdduna alaxira sab royukaay rek nii du ma jeexal nag xam naa waxtu bi xoñ na ma tax waaye dinaa tudd li nga xam ne nii moom mooy li lëmbe jamono ñun amul lu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp koo fi mën topp ak lu mu màgg màgg ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy lu mu am lépp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko jël nabiyun huda bahrun nada manin juudi yan fi lfaqra wa shayfu qaatia mooy géej gi mooy géeju tab gi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam adduna sépp mun nañ cee dund te lay nekk sa moom du jeex mooy njub gi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag mooy jaati ji nga xam ne moom moo teqale dëgg ak ay caaxaan mbokk yi ba toll si jamono benn waaye nekk fële sa France kenn mu doon kenn ku nekk jàng na wala xam na fi nga xam ne nii moom la jaar ci wàllu ak dundam taxawaaloo taxawaalu ba saa borom jox ko lim ko jox muy ñëw naan day dal ki nga xam ne nii mooy sangub sang yi mbokk yi buñ ko mënoon a dindi ci suñuy loxo ko dindi ci loxo waaye nag li yonent bi waxoon képp koo xam ne gis na ko metti naka dindi ci loxoom bu ko mënut naka wax ci làmmañam ba ñépp dégg ko xaw ma macron lañ koy wax xaw ma nu mu tudd waaye jullit bu nekk am nga lu la war sa diggante moom ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne jihaad bu mag bi jeex na bi ci des mooy jihaad jihaad bu ndaw bi jeex na bi ci des mooy jihaad bu mag bi jihaad ba gaa yi daan jihaad nag bokkoon na ci mooy dañ daan joxe yunfiquuna amwaalahum mooy dañ daan joxe seen alal wa anfusahum dañ daan joxe seen bakkan léegi nag xëy na joxe bakkan jeex na waaye joxe alal jeexut mbokk yi maa ngi ñaan képp koo xam ne mbégub yonent bi alayhi salaatu wa salaam te mbég la képp koo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu toll ni sarra lu toll ni ab pepp maa ngi ñaan lépp loo xam ne dafa nekk ci moomeelu français yi nekk fii maa ngi ñaan nga booy ko côté boo ko ta bàyyi totalement tamit na nga ko ak ndiir wala na nga ko bàyyi ci weeru gàmmu gi ngir mettit loo ko loolu nga xam ne nii moom moo am ndax tubaab gëmut yàlla gëmut yonent bi waaye gëm na xaalis alal moom gëm na ko seen économie bu daanoo rek yàlla xam ne ne ñu yëg jullit yëpp buñ maase woon lépp lu fanaat moom ñu génn ci seen loxo wala laata nañ ko yëg kon foofu la sama kàddu toll wala fii la sama kàddu toll ci laa koy jàllale lépp loo xam ne dafa nekk ci moomeelu français yi xam ngeen ko yéen a ma ko gën a xam yéen ma ko gën a xam ñun ñii ñëpp buñ xëyee suñuy suñuy juróom su suñu ñatam dana dem sa ñoom kenn ku nekk yor na yor na yor na téléphone téléphone fiche ba sa nekk euh, euh, fiche su France ak seen bitig yooyu ak seen station yeeg seen banque yeeg lépp ndax foofu la suñ doole toll te kon ni ku nekk nag sa poos bii la ca nekk yaa xam sañ nga kaa def jaayante ko ngir jëmmi yonent bi alayhi salaatu wa salaam weer rek nga boy ko te lépp wa axiri daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin laylatu mawlidi nabi laylatu maawi bi وتورشد عظمي